mbokk yi internet Géejawaay info ñu ngi leen di nuy tey nag ñu ngi arène nationale Assane Ndiaye production moo fi tëgg tey la 3 euh, février mu nekk combat yu neex waaye mu tuddee ko ministre sport Makhtar Ba mbokk yi nee naa leen tey lamb ju neex lañ nar a gis waaye ci kanam tuuti Issa sama caméraman topp ma di dinañ gis lépp mbokk yi ak Géejawaay info tey waa xam nga xale yi dañoo neex a àndal parce que tey euh, doom ja ndey ja boo gisee li mu def nii tey. naar bu ndaw lu mu def te bu mag ba la ko bu muy lan muy digganteem ak Balla Gaye 2 di magam di léppam tey bu yàlla dogalee ñu jugoo ci ndam lu toll nii te bi nga bi Balla Gaye di liggéey ndam loolu mu ànd koog gàkku deux ànd ak xale yi nga xamante ni si ñooy waa école du Balla Gaye may nuyu de suma papa Balla Gaye Ndour ah di nuyu ki nga xamante ni tey mooy pa mama monsieur le maire Alioune aussi ma koy félicité yaa ngi dégg di nuyu Pathé Keita mais problème bi mooy euh, dafa yomb ndax xamal tax dafa mooy tey Lamine muy Lamine kolo mi nga xamante ne moom mooy entraîneur bi li mu liggéey ci xale yi ñoom bu fekkee ay góor lañu bu ñu ñëwee fii ci terrain bi buñ ko wanee dañu am ndam ndax moom doxul ci caaxaan doxul ci lenn loo xamante ni te du luy jëmale géejawaay kanam lool la. kon yaakaar naa ni tey bu ñu amee bés bu toll nii tey mu andi euh, ki nga xam mooy gàkku de mu am ndam lu rëy li mu am kooku géejawaay ameel nañ ko njukkal muy Lamine fay di nit baax may nuyu nag. sa xarit sa ndijay sa mak sa papa sa lepp muy Lamine Samba nit ko xamanteni tay tey na ni senegal ken dootu ko laccé kon yalla ma nga lay ñaanal Lamine Samba numéro 2 yalla nga dem ba raw Lamine Samba numéro 1 dëgg neexul mbokk yi ñi ngi taxaw ak Lamine fay ñu naan gën ko xam ci Lamine Golo nga balma ci cadre bi waaye euh, tay moy entraîneur école de lutte Balla 2 tay nga indi won sa rak sa xarit gako 2 tay bëgg nañ nga delu wat suñu combat bi ak nan nga ko yabé waaw maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di rawatina géejawaay gi ma jóge man aw ma luul géejawaay deretu góor mooy daw sama yaram su ma namoon leneen am naa leneen wala ma dem feneen mais man ba ba may dee lépp sama lépp géejawaay la wax naa leen ko Pikine laa yeewoo falaa laa dëkk fa laa defee lépp mais waa Pikine xam nañ sax man géejawaay dee sama xol lu dul géejawaay ñoruma te école de lutte Balla wax ji bari na lépp bari na maa ngi félicité en passage mbër yi ci am combat woon yëpp daan. ndax la ma waxoon ne ku ci am combat daan la jël bi du yow kese école bee ko moom ak rawatina géejawaay gi ñu dëkk maa ngi ñaanal yàlla na ndami yokk tey nan nga yebee Gackou 2 mu doon bëri ak Petit Niang xale bu bëri mbooloo bu mën a bëri macha allah. waa Gackou 2 ak Petit Niang li ñu naan tolof tolof day dikkal Gackou 2 dafa def daaw benn sortie si caatu yoof mu daan ko mais billaay wallaay 10 combats moo mën Petit Niang 10 combats moo mën Petit Niang maa ngi ñaan yàlla géejawaay yàlla na jàmm sax rawatina école du Balla Gaye su du woon Lamine Golo ak mbës kon heure bi leneen la ñuy wax. coow li lan la ci école de lutte Balla Gaye 2 coow bi diggante les de Elton Balla Gaye yi jaar na fii lii moo am lan lan mooy seen problème. la ma doon wax laay wax rek samay wax démb laa ko gën a mën a wax muy les de di Balla Gaye di Elton amul kenn koo xam ne nii mu ngi may joxeel sama dépense sama kër ba tax ma lay fenal wala may dem di wax lu leen di jaxase xam nga la laa bëgg ñoom ñoomi neen la ñoom ñoom école bi tey jii la nga xam ko jote ñoomi neen la mais li ma la mën a xamal ak lu mënti xew les 2 Balla Gaye 2 Elton ñëpp benn mais école de lutte kenn mënu ko xar ñaar daa am ay mbër yu ndaw yoo xam ne duñ sax ay mbër ñoo nekk ci école bi di indi ay kalan di indi ay affaire u seytaane école de lutte Balla Gaye coow li coow li yëpp daa am ay mbër yu ndaw yoo xam ne tekkiwuñu dara taxul ñu naan ay mbër ñoo indi kalan bi du magu géejawaay du kenn ne magu géejawaay yëpp ku nekk yaa ngi sa liggéey di jàppale mbëri di sonta yàlla tax ba ci jaww daaw da sekk ñëpp dañoo yemale géejawaay def ko doon benn mais li ma la mën a xamal ci gàttal daa am mbëri ndaw yoo xam ne tekkiwuñu dara ñoo nekk si écurie bi di yàq écurie. gars yi nee nañ bi ñor mooy Eumeu Sène Balla Eumeu Sène Balla Gaye. Mm. ñii ne Eumeu Sène Modou Lo yow en tant que sa gis-gis. Mm. ban combat la Sénégalais yi nam waaw tey jii xam nga tey dootoo mën a sori ndax combat bee defe naa dégg naa taxaw na Eumeu Sène Modou Lo waaw léegi li ñu def mooy Balla day dem rek Balla Gaye xale la. Balla Gaye kon kan mooy adversaire la te toll na si bëre. Ama Gris Bordeaux ñii naan Ama Siteu ñii naan Ama Gris Bordeaux ban la làmb soxla. noo tey ji xam nga loolu moom su ma ci ñoree sori damay damay wax lu ma xamul ndax Ama Baldé dafa am staff am lépp tey ji kaawam ñoom ñooy xool lu ko arrangé rek ñu jël ko mais daal li ma la mën a xamal Ama combat bu mu am yàlla na ko sunu borom may ndam man maa bëgg Ama Baldé. dama koo faral lan mooy avenir Gackou 2. Gackou 2 mu ngi ci la na liggéeyaat rek may liggéey ne man école bi du ma la nëbb ñoom ñëpp ku fi ñëw rek lu metti rek man du ma benn mbër dañuy entraîné te gis nga ànd tey su bëre woon quatre-vingt-dix li ma ko doon teg moo gën a metti lii su bëre woon quatre-vingt-dix du sonn du xëxët yàlla nañu yàlla dolli jàmm suñu école bi liñ si namm muy yeneen champion yu mel ni ñoom Balla Gaye ak Elton ak Lees ak yooyu yàlla na ko si yàlla defaat te ñi nga xam ne ni ñoo fi nekk di naan école na ak yàqu école bi du mus a yàqu dara yoo xam ne li ma la wax kay ñoo fi nekk di mais kenn deful dara di sant waa Géejawaay yépp di nuyu ñëpp di rawatina ñoom surtout Jamil sama doomu ndey bi nekk Brésil sama conseiller la day wax may dégg maa ngi sant Jamil Gaye bu baax rawatina ak mbës sama doomu ndey nga xam ne école bi ñoo fi nekk di sonn.